téléspectateurs de la 7TV et eh bienvenue dans votre émission góorgóorlu comme ni ñu koy defee tous les mercredis dañuy daal di dem ànd ak kenn ki nga xam ne ah, moom dafay daal di daan doolam ah, tey nag ñu ngi fii nga xam ne mooy Grand Médine ah, fii ci pont 92 bi daal di seet si un grand monsieur monsieur bi nga xam ne moom nag métier bi muy def c'est pas du tout facile c'est très risqué mais góorgóorlu rek mën na lu ne ba tax na kooku di Wilane et frère on va trouver daal di waxtaan ak moom ci rek. li nga xam ne moom lay liggéey ah, di menuisier aluminium donc dañuy ànd ak sama complicité caméraman di di Sadibou ñu dal di dem ah, ci moom daal di ko seeti ah, waxtaan ak moom lu bëree bëri at lu yaatoo yaat Cheikh bu baaxee rek nga daal di ma accompagne voilà nos chers téléspectateurs de la 7TV comme ni ngeen ko gisee tantôt euh, nee naa leen maa ngi fii nga xam ne mooy HLM euh, Grand Médine euh, tey dañu daal di ñëw seet ci un grand monsieur du nom de Mbara Wilane donc dañ koy daal di bàyyi mu nuyoo jàmm santé après ñu daal di ñëw ci waxtaan bi Mbara nuyu nañ nañ la kay naa la Char ñu ngi leen di nuyu ci Grand Médine ci atelier Mbara Wilane soudeur métallique ñu ngi nuyu Sénégal gi yëpp ñu ngi leen di nuyu ci plateau Sen TV. Euh, plateau 7 TV plateau 7 TV pardon euh, di leen wax dalal leen ak jàmm pour émission bi ñu bëgg a def ak ñoom quoi. merci beaucoup c'est un énorme plaisir également yow it euh, si seet si bi ñu la seet si ah, donc Mbara Wilane dañuy daal di ñëw nga daal di ñu wax exactement ban genre menuisier ngay de man menuisier. mais xaw yaatal nañ ko parce que menuiserie métallique la dañuy def menuiserie métallique dañuy def. aluminium menuiserie métallique bi aussi dafa dañ ci yokk leen mooy dañuy def inox dañuy def inox mooy weñ bu weex bi nga xamante ni papa gis ko mu rafet mel ni xaalis koy def koy def waaw. daal di am euh, ak euh, ak bi nga wax léegi nii lan mooy euh, ak ébéniste hmm, métallique bi mooy weñ bi comme li nga gis fii loolu mooy menuiserie métallique. ébéniste bi mooy ñi nga xamante ni bois la ñuy defar buntu néeg yi lal yi armoire yeeg affaire yooyu ñun nag ñooy njëkk ci kër gi ci buntu kër yi gris yi gris fenêtre yeeg ak euh, yeneen yu mel noonu wa voilà pour sécurité bi d'abord balaa ngaa yegg ci biir biir néeg yi quoi mooy seen différence beneen bi comme menuiserie euh, comme aluminium bi aluminium bi moom bu nekkee sa jàng métier ci Euh, métallique bi mokk na mel na ni ngi ko bëggee pour nga liggéey aluminium bi dina ëpp lu compliqué lu jafe parce que menuiserie métallique dafa riche ba nga xamante nii soo ko xasee bu mën lu ci bëree bëri ci yeneen corps de métier yi dafay fekk mënaale nga ko moo tax euh, surtout ak bi ma la wax noonu muy inox bi bariwul soudeur yoo nga xamante nii dañ koy def parce que weñ boobu bi mu commencé Sénégal bi ñu ko xamee euh, mën naa ne yàgg na sax mais dëgg-dëgg liggéey bi bi mu fi duggee yàggagul noonu quoi comme atelier soudeur yi di boole ko ci seen biir métier mais nag bu fekkoon comme li ma waxoon léegi ci euh, menuiserie bi métallique bi dafa riche ba nga xamante ni su nekkee sa jàng mokk na ci rek yooyu yëpp da koy mën a defaale waaw moo tax ñun bi weñ boobu amee ba ñëpp dugg ci ñun tamit dañ ci dugg di ci def rafet nag yu baax a baax voilà ba tax na aston bi euh, seen métier bi dafa daal di évoluer bu baax a baax ba léegi da ngeen di defar lal en métallique euh, armoire lépp lépp da ngeen koy daal di def yow lan mooy sa particularité ban nga gën a si fan nga gën a foore bon Euh, weñ bi mën naa ne foofu mooy suma foofu laa gën a foor ci weñ euh, comme li nga wax menuiserie métallique bi moom foofu laa gën a fort euh, aluminium bi mën naa ko mais li ëpp sama temps mayut ma ma ci dugg bu baax a baax di ci kii li ëpp damay won xale yi rek ñoom ñi def mais li nga xamante nii moom moo gën a të gën a compliqué foofu laay gën a kiiwee mooy métallique bi waaw yeneen yi moom su ma wonee rek comme aluminium bi su ma wonee day xale yi dañuy def mais comme métallique bi nii xam ne dafa xaw compliqué am yoo xamante ne nii wane ko taxul ah nga am ci li nga bëgg loolu moo tax euh, parfois ma dugg ceeg moom ko mais aluminium bi moom bon yomb comme ni ma waxee ak euh, aussi inox bi inox bi moom tamit dafa am complication yu ci nekk yoo xamante ni mën kii bi euh, dina tax nga dem mais dafa am yaa des complications nekk ci biir quoi voilà yooyu moom foor naa ci bu baax a baax léegi yow da ngay defar lan lan ngay defar lal fauteuil et bi si dañuy defar euh, parfois ñu defar fi ay lal euh, ci métallique bi fer forgé même aluminium bi sax dañ ciy defar lal temps yi sànc bi ma am mujjee am defar naa ay armoire décoré ay waañ ak affaire yooyu yëpp dañ koy def décoration yu rafet sax dañ koy def ci kii bi lal yi dañ ciy defar lal dañ ciy def armoire euh, métallique bi aussi noonu quoi waaw métallique bi bariwul luñ ciy defar bon armoire ak affaire yooyu mais lal bari na trop dañ ko ciy defar lu rafet sax parce que fer forgé ñun suñu xool ñun bi ñuy nekk fii man bi may jàng métier ci Grand Yoff fii laa jàngi métier mais bi may jàng métier ci Grand Yoff fii nii bariwul comme li ñuy liggéey ni faire force ku ko fiy liggéey Grand Yoff mën naa ne man ci xale yi fi njëkk liggéey bi may nekk xale ko xale yi fi njëkk liggéey faire force ci laa bokk euh, bari na sama grand frère yoo xamante ni ñoo ma jiitu ci liggéey bi sama tur sax ñu ci bëri xamuñ ko woon dañ maan dañ naan wax baara faire force mooy li nga xamante ne ni moo gënoon a ci liggéey man loolu lañ ma daan wax sama tur dañ ko yóbbuwoon ci Daara Perpage samay grand yi nga xamante ne ñoo ma njëkkoon am atelier quoi balaa ma doon am atelier foofu laa doon dem parfois bu ma amee liggéey ma liggéey ko ko voilà dafa nekkoon liggéey bu raar boo xamante ne nii ku ko mën rek dañuy xam ne kii am na lu ma mën ci weñ loolu nag man dama ci fooroon dafa nekkoon sama foor quoi voilà. alors comme Bara fer forgé et que ba nga koy commencé t'étais encore très jeune euh, donc yow euh, ba nga ko commencé at léegi war na def ñaata at wala ba nga koy commencé ñaata at nga bon bi ma dama ko xaw a teel a commencé nag parce que xam nga comme euh, li ñuy wax soo jàngee gis na jàng mi xaw am na lu la desee da ngay teel a daw dugg métier bu njëkk quoi noonu la daan demee moo tax bi ma koy à l'âge de quinze laa dugg métier waaw quinze ans laa dugg métier pour l'instant fi mu toll nii def naa ci plus de vingt waaw def naa ci vingt deux ans moo tax moo tax euh, xaw nañ ci yàgg daal waaw nañ ci def nga ci vingt deux ans boobu am na xale yu bari juddeeguñu quinze ans tamit euh, franchement boo leen xoolee ne jàng gi demul rek dem leen ngeen uti métier parce que métier yëpp baax na bañ a ñaan ak bañ a sàcc rek euh, moo gën lépp donc euh, mi ngi noonu ba tax na baaxa euh, c'est un métier très dangereux donc yombu bëri ay danger si am na ay danger yu ci nekk mais nag àdduna bi moo demee noonu adduna bi moo mel adduna bi yëpp mën naa ne ay danger kese la nit su nekkee ne joloo risque mën nga bañ yegg fi nga bëgg a yegg fi nga bëgg yegg boo jëloo ay risques da nga ko fa bañ weñ ku ciy liggéey ku ne surtout weñ boo xamante ne nii euh, parfois nga dugal ko ci forge yi ba mu tàng xonk cor nga bëgg liggéey weñ boobu former ko comme ni nga ko bëggee am na ay danger mais day fekk le temps yegg foofu yow mi nga xamante ne nii danger yooyu ne ci weñ bi mën na laa indil ay problème yow day fekk nga am ñi ñi formé ci formé la ci ba xam ne yooyu loolu mën koo bañ a affaire mën na laa bañ a yi mën nga cee bañ a yegg quoi voilà comme fi toll ni du xale bu euh, ñëw bees rek lañuy dugal ci yu mel noonu yi nga xamante ni moo ëpp danger ci métier bi noonu day fekk nga nekk fi ba benn temps boo xamante ne sa expérience xaw na ñëw ñu doog la dugal ci yooyu mais am na ay danger moom sincèrement. parlant des dangers euh, est-ce que yéen boo leen di liggéey tey di ngeen protéger wu parce que gis nañ seen loxo yi ngeen gën a utiliser et seen bët yi aussi dañuy demaale et que lu danger moo ci nekk donc yéen est-ce que yéen a ngi protéger wu at yan ngeen di protéger si ñuy protéger wu euh, dañuy protéger wu bët yi moo ëpp ci li ñuy euh, protéger normalement li war ci sunu métier bi ci protection yooyu xaw na bari parce que normalement bu ñuy liggéey sax dañoo war a sol ay kagul dañoo war a kagulawu ba nga xamante ni parce que ferñeent yi nii di booy suude ci euh, kii yooyu noonu di jóg yooyu noonu di jóg wóorul hmm, loolu bariwul ci suudar yi ñu koy def mais nag quant moom dañuy protéger parce que am na sunuy sunuy masque mu ngi nii waaw am nañ ay lunettes yoo xamante ne nii bu ko laajee mën nañ ko wane euh, masque yaa ngi masque ngi noonu ci biir dañ ko balaa ñoo suude dañ koy dañ koy nat mais nag xale yi aussi am na ci ñoo xamante ni yooyu bugguñ ko parce que dafa xaw a lëndëm ci ki nga xamante ne nii dafay jàng suude moom su sañoon euh, verre yi nga xamante ni gis nga leen ñoom ñi takk ko ci seen noir fumé yi yooyu lañ di gën di mën a suude ba ba ñuy yeggee ci niveau boo xamante ni dinañ mën a jël verre kii yu gën a lëndëm yi quoi waaw mais nag man moom bu may suudee euh, verre masque yi laay jël quoi yu gën a lëndëm même ñoom ñoom tout le temps dama leen koy wax quoi day leen jël masque yi parce que nga jàng ci ba mën ci mooy gën quoi mooy gën ci yow quoi. alors euh, bëggoon naa xam aussi yan genre accident ngeen di confronter yéen euh, instant bi boo leen di liggéey yan genre accident ngeen di gën a di faral di gën a am dagg wala affaire étincelle yi dugg seen bët wala mu lakk leen wala lan. waaw dañ fay am ay accident Euh, parfois da ngay jox comme li ma la wax noonu da ngay jox benn xale ne ko daggal ma ak brin bi muy dagg <laughs> marto di dóor marto marto bi mooy laal loxo bi loolu da ciy am waaw mais saf na mais <laughs> boo ko defee ñaare xale yi fi nekk dañ lay tooñ naal na métier bi mooy dugg quoi maanaam yow tey am nga leçon boo xamante ni amoo ko woon démb quoi léegi beneen yoon moom doo dóoraat sa bopp marto da ngay xool bu baax fooy dóor sa voilà loolu dañ dañ euh, loolu dañ dañ ciy dal Euh, comme kii bi itam euh, parfois da ngay suude bu tàng nga demoo nga dem ñëw fàtte ne fii suude woon nga ko nga teg ci sa loxo wala leneen nga lakk euh, parfois aussi mool bi comme xale yi comme li ma lay wax noonu li nga doon laaj léegi ci protection yi nga xamante ni dañ ko war di jël bu ñuy dagg parfois da ngay gis kuy dagg wala ngay mële nga waroon sol vert solo vert étincelle bi xoolal naaw dugg sa bët te démb rek am naa ci benn cas sama xal sama benn xale hôpital bopp la mujj dem pour pour dindi babir parce que babir day dugg sa bët te babir bu xasee ba dugg sa bët mënatoo ko def dara lu dem dindi parce que mosoon naa dalal xam naa yaa à peu près un an dalaloon naa benn menuisier aluminium moom nee na loolu dafa graaw dafay métti te balaa ngay gën a lii nii boo tëddee ba guddi si lay gën a métti est-ce que ko gën a leeralal parce que loolu doy na waar daan nan ngeen koy dindee oh, bon da comme babir yi ma la wax noonu xam nga babir day naaw léegi bu nekkee ne jëloo verre yi boo euh, booy dagg da nga war a jël ay verre sol parfois ñoom dañuy yàkkam ci wala ñu tayal ko jël léegi babir bi bu naawee day dugg sa biir te xam bët bi genre toile moo genre kii moo ci ne babir bi dafay tàng gis bu bu dugg bu yegsee rek dafay kole ci biir bët bi daf ciy collé noo mënti def di nga dem bopp noo mënti def da ngay dem bopp démb sama xale boobu moom euh, dem na bopp dindi ko tay ñëw na mu ngi ne mooy borom verre yii nii démb hôpital bopp la xëy. borom feeri kaay. ñëwal al nu tudd. Aliou Aliou kaay borom demoon bopp yow Aliou kaay <laughs> Aliou dégg naa démb na nga demoon bopp ñoo ngi ko nal nii rek xam naa dañ muy sut daal ba nga ba affaire bi duggee sa bët yi noo ko dundee. dafa métti yaru. waaw yaru naa kay. dama ba mu duggee sa bët yi fii nga nekkoon di yuuxu yuuxu yu mel. de. sama mère damaa demoon tëdd ko fii waaw boo nekk si naaj bi rek lay métti. tey nga ah, nga nga sol ko. démb maa ngi soloon ban bët la dugal ci sa verre bët bii nii. ba tey dafa ruuj. waaw mais moom tane bu baax. waaw instant bi da ngay sentir métti métti wala. non dañ na kay nekk si naaj bi rek solaatal say verre. masa dégg. merci beaucoup Alioune <laughs> Alioune nee na affaire bi bu nekkee ci ci naaj bi rek lay métti. waaw bu si euh, ci lay gën a métti parce que bu naaj bi tàngee xam nga bët buy métti ak naaj bu tàng àndul bu naaj bi tàngee dafay mel ni eh, yow bokkutoo dootoo voilà voilà dootoo bokk yow tout le temps lumière moom doo ko bokk waaw lumière boobu doo ko bokk am na. comme wànnent rek. comme wànnent dafay métti. balaa ngaa kii. da nga dem opi da nga dem hôpital ñu génnee ko euh, buñ ko bennee ba pare jox la ay garab boo ñëwee bon boo toogee euh, benn fan moom démb la woon tey xëy si na voilà. mais bët bi rouge na aussi day rouge moom parce que. j'espère que ko joxaat moom mu def. bët dafa fiir lu ci dugg lu ci bokkul dina ko wane loolu moo tax mais xam nga d'ici quelque temps de affaire bi day daj. mais di nga ko wu bañ a laal loolu pendant bu bët bi tanee rek bu bët bi tanee euh, ñu wax ñu delloo. delloo ko ci parce que aussi ñun tamit noonu lañ dundee métier bi ba toll ba ba toll nii quoi voilà xëy na parent yi sax ñoo tax euh, kiiwul mais euh, tey ak suba yëpp mënoon nu reposer mais parents yi parfois duñ bëgg xale yi nekk foofu noonu voilà moo tax ñu ne ko demal quoi voilà moo tax alors est-ce que liggéey ak safara c'est waaw mooy li ma waxoon léegi rek euh, lu wóor wóor moom loo xamante ni da koy liggéey ci Sénégal ci àdduna bi pour l'instant mu wóor ba tax na yow nga ciy dem à cent pour cent lu xaw a jafe la waaw xaw na jafe euh, comme li ma la waxoon léegi rek fii ay kii moom am na fi euh, lu wóor moom dëgg-dëgg à cent pour cent bon mais ñun xam nañ ni ñu ciy demee ñun xam nañ li nga xamante ni noonu lañ ciy demee comme li ma la waxoon sànq xale bu ñëw yi nga xamante ne nii mooy danger yi nga xamante ni moo ëpp danger duñ la ci liggéeyloo ñun ñi nga xamante ne nii ñun ñoo ëpp expérience ci loolu ñun ñoo ciy nekk waaw ba keroog yow ngay mënee loolu. naka yéen seen liggéey bi naka ngeen koy moderniser ak sécuriser ko. Euh, bon comme li ma la wax léegi ci ginnaaw moderne façon moderne la boo xamante ni nii def nañ ko ci liggéey bi comme menuisier euh, weñ yu weex yooyu ma lay wax inox yooyu noonu bokkul woon ci soudeur métallique bi mais euh, jamono moo ko indi lu bees la nit ñi gis moo ba dugal ko ci liggéey bi. comme li ma la wax léegi am na menuisier métallique yu bëri ñoo xamante ne nii ñoom dugguñ ci mais ñun moom comme jamono moo ko laaj affaire moderne ci lañ nekk ni moo tax ñun ñu dugg ci waaw moo tax ñu dugal loolu yëpp li nga xamante ne nii ñu bëri dañ ko doon wuti bitim réew ak fu ne ñun dañ koy liggéey fii voilà. pour sécurité bi nag comment naka ngeen koy defee ba euh, maintenant di ngeen am peut-être ay euh, ay lunettes yoo xam ne comme genre casquette lay dool ay mbaxane comme genre casque lay doon. seen gants yi xam ne du leen déranger et cetera koy xalaat parce que quand même bët nekk na lu sensible comme ni nga ko waxee tout euh, nekk na loo xam ne lu ndaw bu ci duggee rek mu metti donc naka ngeen di def ba améliorer loolu moom xam ne boo leen di euh, suudee euh, du daal di jege bët. bon xanaa gën ci góorgóorlu rek parce que nit it li ngay def comme wér-gu-yaram jaayul da nga ci war a xar sa tànk tubooy pour. jël ci say matuwaay bu baax baax ñu ngi ciy xalaat di ci jéem a góorgóorlu pour comme li nga wax léegi euh, casque yeek verre yeek gants yeeg yëpp ñi koy jéem a def ni nga xamante ni noonu la ko liggéey bi laajee parce que aussi nit it li ngay liggéey donc da ci war a waslu sa àq daal da ci war war a waslu sa àq mooy tax yu bëree bëri mën a ñàkk yenn accident yi ciy am yu ci bëree yu ci bëree bëri mën a ñàkk euh, dinañ ci loolu yëpp euh, dinañ ci gën a à part d'aujourd'hui dinañ ci gën a jéem euh, dox. association. voilà gouvernement ibbil leen ay entreprise yoo xam ne day defal uniquement ça. buñ ko amee hmm, dañuy jël mais man xam nga man sama revendication du dox du bëri ci nguur gi parce que voilà parce que ñun bañ commencé jàng ci ba léegi ci suñu bopp lañ nekk lu ñu sunu Sénégal. defal ñu jël mais euh, li ñuy xaar déedéet dépendre ci Sénégal li ñuy xaat ci Sénégal mooy bon Sénégal euh, li nga xamante ni ñun foofu la suñ nekk euh, kii noot Sénégal ay liñ ci wut ci biir Sénégal mu yomb ba nga xamante ni ñun dinañ ci mën a jot. en tout a ngi liggéeyal seen réew yéen ñëpp ñu meloon ni yéen xam naa ne Sénégal moom avancement dina am te yéen bàyyi di dépendre trop ci gouvernement bi bien vrai que gouvernement bi aussi ñun la fi nekkal donc yu bari yoo xam ne. Euh, ñoom dañ koy def ñun ñoo tax ñu koy def euh, donc mii noonu est-ce que liggéey bi ça rapporte de l'argent est-ce ah, <laughs> dañuy sant yàlla mais ñun boo ñu xoolee sax xam ne loolu dañ ñuy tooñ rek mais ñun ñu amuñu xaalis. Ah, nëbëtu boo leen ñëw fii toni ngeen di sol boo leen paree dawal seen oto yu cher. waaw al euh, xëy na boo fi jógee yàlla dina taw lool taw boobu ci ñun mais loolu moom amaguñ ko quoi mais ñi ngi koy njott ne yàlla dina ko indi am na bon. am na bu nekkee dangay am liggéey di nga am loo suturloo loo xamante ni di ci mën a dimbandiku ak sa njaboot waaw ak ñi nga njaboot bi moom dafa yaatu bu mën a njaboot mooy li la wër yëpp waaw di ngeen ci mën a la surtout euh, weñ bi quoi ci ak nouveau liggéey bi nga xamante ni am na comme li ma la wax noonu liggéey yi jafe te ñun ñu yàlla dafa def dañuy liggéey ak qualité liggéey bu baax la ñuy def sama client yi nga xamante ne nii dinañ ma seetaan dinañ xam li may wax damay rus wax loo xamante ne nii ku ma seetaan ne loolu amul euh, ñi may seetaan dinañ xam li may wax liggéey ak qualité la ñuy def liggéey ak qualité nag boo koy def ba nit ñi xam la ci ku ciy ñëw day sóor boppam day xam ne man fi ma jëm damaa war a fay xaalis loolu loolu moo tax ñun loolu dañ ko déedéet bi lañ ko teel a ah euh, def suñu bopp ba nga xamante ne ñu bari ñu ñuy liggéey liggéeyloo dañ koy xam ni voilà voilà ça Euh, client yi et tout da ngeen di respecter délai yéen a ngi respecter nga ne nit ki xool euh, euh, jour tel bu ñëwee dina fekk liggéeyam. waaw dinañuy respecter délai yi mais parfois nag ñu am ci ay kii quoi parfois. waaw parfois ñuy bañ a respecter. waaw du loolu du si ñàkk loolu laa bëggoon sax expliquer ni muy demee parfois da ngay am benn client mu jox la benn liggéey boo xamante ni. yow liggéey bi war nga ko liggéey ci un mois client bi yàkkamti ba ne la dix jours ou vingt ou quinze jours yow nga xam ne lii un mois la mën liggéey nga ko mën liggéey nga wax ko ko mu ne la noo man quinze jours laa la la mën jox comme nga ne ko indi nga engagé parce que problème bi mooy buggoo liggéey bi raxal parce que liggéey yombul nga engagé léegi nga def ci sa kem kàttan ah pour mu pare bu parewul mag yow fekk am na loo am na yenn kàddu yoo ko jotoon wax donte wax nga ko loo xamante ne nii nangu woon nga mais aussi loolu parfois daal la ñuy arrêté. parfois tamit c'est normal que client bi wala cliente bi ne la jour tel délai tel après yow forcément nga bëgg accepter loolu parce que tey délai boobu mën nga ko respecter nga liggéey affaire bi liggéeyu gaawantu du baax. wala nga bañ a respecter boo boobu indil la beneen problème est-ce que loolu aussi doo leen revoir un peu seen communication boobu. bon waaw loolu erreur de communication am na ci mais li koy waral mooy comme li ma la li ma ci jiital ci liggéey ci wax bi sànq euh, comme ñun Sénégal liggéey dafa xaw a jafe boo gisee yu mel noonu doo ko nangoo bàyyi voilà mais da ngay da ngay dem ba ci biir nga xam ne yow mi yow client bi mën ngeen ci am problème mais boo neexee direct comme man problème bi du bari bu nekkee nit danga def loo xamante ne nii waroo ko def ah, explication yi moo ci ëpp solo ba man damay expliquer. ba nga xamante ni yow da nga comprendre te mënul gaa yàkkamti mënoo yàkkamte yàkkamte ba liggéey bi man du ma ko defee noo xamante ni bu ñëwee dinga nga kontaan du ma koy du ma koy yàkkamte ba bu ñëwee du normal waaw lu mu yàkkam yàkkam bu ñëwee di nga kontaan moom alaa kulli yàlla euh, dafa am benn phrase boo xam ne tout le temps dañu faral di ko dégg donc man maa ko gën a mën a wax nag parce que peut-être am na benn histoire peut-être ak des ouvriers on dit souvent que les ouvriers sénégalais sont des truands euh, am na ci parce que doon a déet xam dangay ngay da ngay xam ne am na ci parce que dégg nga wax bi ñi ngi koy wax donte du yow mais dégg nga ñi koy wax kon da ngay xam dangay gëm ne rek am na ci mais man sama bopp laa gën a xam quoi ak ñi nga xamante ni séq na ak ñoom liggéey tey bu yàlla defoon ñu tase woon ak yow fii dina la man wan a wax man maay kan depuis bu ma commencé liggéey ba léegi amul benn nit bu mën a taxaw ne kii yorel na ma liggéey war a yorel na xaalis amul loolu cele koy wax amul kenn Sénégal ron amul kenn ku mu mën a taxaw ne kii yoreel naa ko liggéey wala yoreel naa ko xaalis amul wala liggéey bi bi mu ñëwee kontaanu ma force man ku ma liggéeyal da ngay kontaan man damay bëgg sax voilà man damay bëgg tout le temps dama koy proposer sama client yi balaa ma lay liggéey su nekkee client bu bees nga boo xam ne xamagoo ma ma defal la benn échantillon boo xamante ne nii ah nga gis ko ba pare parce que sax daf may wóor ne bu ma ko defee da ngay da ngay kii ñoo kontaan. yéen yi nga xam ne yéen ay ouvrier yi yenn a may seetaan euh, respecté leen rendez-vous nit ñi respecté xaalis nit ñi respecté liggéeyu nit ñi parce que euh, mu ñun lii moo ñu gën a Sénégal euh, mais des fois nga ouvrier yi nga xam ne franchement dañ lay découragé loo tax nga bëgg dem boutique bu cher jënd ay meubles yu cher alors que mënoon nga ñëw si ouvrier boobu jox ko mu defal la quand yow ban conseil ngay jox ñooñu bon ñi gën ci bàyyi xel bu baax a baax comme li nga wax nii di yow kese yaa wax lii ñi koy wax bari na trop am na ñoo xamante ni bëgg nañ dimbali seen doomi réew mais liñ fi gis a tax parce que jox nit sa liggéey melul ni nga ko bëggee benn faussé nga rendez-vous deuxième deuxièmement yow liggéey bi bi mu ñëwee melul ni nga ko ni ko bëggee loolu moom dafa loolu moom kenn mënul accepter loolu. moo ko taawam tam muy yéeg a ko wàcc dem police tamit. non. loolu moom dama yaakaar nit warul sax mën a yaafus ba ci yegg ak nit quoi ci police parce que tardeel nit ki rek dafa doy euh, nga koy yóbbu ci beneen domaine nag pour muy jëma jëm ak yow police loolu moom leneen la euh, comme sama mbokk yëpp maa ngi leen di conseiller euh, comme liñ fi jot a wax léegi nit ñi bëgg nañ dimbali seen doom yi mais dafa am ñoo xamante ne ni dañoo ñemewul parce que li ñuy dégg ci ouvrier yi ouvrier yi ay triant lañ loolu man man personnellement man maa ci xar sama tànk tubéy pour waaw pour loolu du am man képp ku ko wax sama kanam loolu dinaa fexe ba nga xamante ne ci ci ca sama nit ku nekk nag sa bopp la xam ko en tout ca man moom ak ñi nga xamante ne nii ñoo ñoo may fréquenté tout le temps samay conseil lay jëmee ci ñoom waaw nit ki li ngay liggéey da ngay war a fexe ba mu ñoŋ ba nit ñi ñeme ko ñeme la yow mi koy defal bu ko defee li nga ciy mën a li nga ci bëgg wut yàlla mën na la ko defal soo ko deful su nekkee amoo lépp li nga am yàlla barkeel ko parce que kenn kenn kenn kenn jéppiwu la ci voilà noonu la demee. bàyyi leen xel ci loolu parce que métti na tamit yéeg beet wàcc beet xulloo beet histoire bi woote ngeen di bañ a lii des fois ñu ñëw si seen atelier sax ngeen ne vraiment nekkoo leen fa alors que da ngeen di nëbatu nit tamit yow yaa respecté sa bopp ñi nga xam ne ñooy ouvrier yi koy def yéen a ñuy seetaan bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax a baax ndax tànn suuf surtout pas ba tax na aussi dañuy laaj euh, da ngay enquêter li nga xam ne mooy. Euh, xaalis avant pendant ou après. si dañuy def lépp euh, parfois comme li ma wax léegi am na client boo xamante ne nii ci sant day day dépendre ci client yi am na client boo xamante ne nii bu ñëwee xamagul la kooku mën nga ko yombalal euh, yow tamit parce que dafa am client yoo xamante ne mën nañ la commander léegi mu gis ne affaire bi yéex na ñuy dem commander waat keneen léegi da ngay jël ci moom somb ko ki la xamagul da ngay jël ci moom tuuti xaalis ne ko demal. mu dem nga liggéeyal ko su pare nga jox ko wala balaa balaa moo pare nga woo nga woo ko mu ñëw xool liggéeyam bi mu gis ne avancé nga mu jox la tuuti sama xaalis après boo livré mu yeggale la parfois man su nekkee ne xam naa ko nii nii nii may wax yow nii am na sama client yu bari yoo xamante ne liggéey naa leen ba pare fayaguñ ma te joxuñ ma woon dërëm te nii nii am na sànc bu ma war a commencé boo xamante ni mu ngi fii euh, Kër Massar dama koy commencé euh, liggéeyal ko ba pare mu doog tamit du doon perte bon ci yow parce que euh, apparemment kii euh, ngeen di utiliser cher na donc euh, wala lan la da am benn entreprise boo xam ne moo lay jox affaire marchandise yi liggéey wala nu mu demee si bon comme loolu yëpp li koy maye mooy jubal ci sa liggéey comme li nga wax léegi moo ci ne boo ko bëggee def da nga bëgg xëcc client bi rek gën ko xamal yow yaay kan gën won ko sa bopp boo jubalee ci liggéey bi ñi lay jox matériel yi bu ñu xamee ne yow mi boo boo liggéeyee boo jotee xaalis bi da leen koy delloowaat ñooñu loo fa bëgg da nga koy am. ce que je veux euh, mooy que par exemple tey mën euh, nga jub mën nga at ki nga xam ne mooy euh, ki ngay jëlanteen matériel yi mais tey nga dem ba ci biir ki nga xam ne moo la war a fay fayu la comment tu vas vivre ça yow. bon loolu métti na trop parfois mu daal ñu mais bu nekkee ne def nga ko comme li ma wax léegi jël matériel. ba pare di xaar ñi fay la pour nga doog doog a mën a dem fay sa fournisseur bu nekkee client bi fayu la di nga di nga ci sonn mais nag bu fekkee ne amoon nga leneen loo denc ci loolu ngay jël rek dem jox ko léegi nga commencé des ak kooku ba mu lay faye noonu lay demee mais mais loolu moom parfois ñun dañ koy defal sunuy client dañuy liggéey ba pare euh, nga doog ñi fay surtout nag comme li ma wax léegi bu nekkee ne da ngay doog a ñëw ci ñun bees xamaguñ la dëgg-dëgg xamagooñu dañ lay defal loolu pour nga xam ñu ñu ñooy kan parce que li tax wo am na ñoo xamante ne bu ñu ko defee du wóor parce que li tax mooy bu nekkee sa liggéey bi wóolu wóolu woo ko en cent pour cent mën nga dem client bi bon liggéey bi bu ko neexul mën nga cee am problème mais ki koy def moom day xam da koy wóor ne li muy liggéey bu demee client bi dina ko bëgg ay des ouvriers comme lui ba tax na yéen it clients yi bàyyi leen xel ne carrément moom dafa farlu lool ci liggéeyam ba ba tax na yéen it boo leen koy fay bu leen demee euh, demi mesure dem leen fay leen ko lépp lépp lépp parce que moom facilité na leen lépp donc dañuy daal di dem si suñu dernière question est-ce que ba tey dañuy ñu resté si clients yi parce que yéen moom ak clients yi toujours c'est la guerre donc <laughs> la guerre est-ce que mën na la arrivé nga am histoire euh, non loolu moom yàlla def na musuma am ak benn client wax ci sama atelier benn client musu ko am ci man sama atelier ak sànceeg fu mu mënti doon yaa ngi lay seetaan ñëpp a nga may seetaan dajee genre kii naa yi nii xam dañoo dañoo bëri histoire bëri problème non bu ko defee man maay xam ni may doxalee ba amul sax dafa amagul sax man ku ma kiiwal parce que lépp mu ngi euh, mu ngi dépendre ci comportement bi nga xamante ne yow ouvrier bi moom nga yor voilà parce que man euh, bon respect réciproque dama lay njëkk a respecté ba pare balaa may ba pare balaa ma doon ñëw daf fekkoon ma respecté sam bopp respecté sam bopp nag mooy dama jiital li nga xamante ni loolu la voilà dama jiital li nga xamante ni loolu laa waroon jiital ba pare doogay ñëw ci yow moo tax yàlla dogalagul ma am ci benn client boo xamante ne nii wax nañ man ak yow ñaari baat amu ci nit nag mu du ñàkk comme li nga doon wax li nga ma laajoon sànq du ñàkk parfois nga am ci parce que liggéey bu ne euh, ki koy liggéey dina ci am ay erreur li nga ci am ñoo xamante ni dina la mere maire bi mën naa bañ a metti parce que lu tax mooy comme li ma la wax léegi man dama respecté woon sama bopp balaa maa ñëw ci yow moo tax même boo ma meree di nga ma rus tuuti pour mën a génne maire mais am ci kii soir ak benn client xamul euh, loolu moom dama lay bàyyeeg sa euh, buy booy def émission bi bu nekkee mu ngi kii nga def sa def sa numéro téléphone pour client yi mën la woo pour mën a seede ba xam kii li muy wax dëgg la wala du dëgg voilà respect réciproque Cheikh ba tax na ah, nit ki boo respecté sa bopp rek dañ lay daal di respecté nga farlu si sa liggéey tamit ñu jox la cër lool lool lool ba tax na moom mii di wax tey ah, donc wute na lool ak ouvrier yi nga xam ne ah, ñoom ñooy daal di liggéey ndax man moom nee naa leen mën a menuisier de bois yéeg nañu wàcc nañ dem nañ fu nekk ah des des na sax ak samay meuble dama sonn ci moom ba bàyyi ko daal di commandé ci keneen donc mu nekk loo xam ne situation boo xam ne nit ñi dañ koy daal di dund la il faut ngeen bàyyi xel un peu ci ñi nga xam ne ñooy clients yi mais yéen tam ñi nga xam ne yéen ay euh, ouvrier yi il ngeen bàyyi xel trop ci seen yi ngeen xam ne ngeen nekkee yéen a tax nit ñi di commander euh, ci international te ñu mën a commander fii suñu réew ñiy defar à à yéen a leen dàq fuuf liggéey yéen leen gën a moins cher te aussi euh, yéen yéen a leen gën nekk ñi nga xam ne ci yéen lañu war a mën gën a war mën a jàppale alors dañ lay daal di bàyyi rek nga wax sa dernier mot. Euh, kay na kay saa naa ñu ngi lay gërëm bu baax di gërëm plateau 7TV ci émission yu baax yi ngeen di def ci émission yu baax ci réew mi yi ngeen di def parce que yu mel ni bariwul luñ koy gis ci télé yi te dafa war a am parce que mm, àdduna euh, réew dafa war a jiital liggéey au lieu muy jiital wax dafa war a jiital liggéey. te Sénégal boo boo xoolee coow li daf fi xaw a bari léegi euh, joxuñ conseil xale yi naka lañ war a def comme plateau yu mel nii yow instant bi li ngay def nii émission bi ngay def nii dafa dafa riche ba nga xamante ne nii danga nga ci waroon a am ay sponsor yoo xamante ni dañ la ci waroon di gunge li mel ni comme ñun ñi ñuy jaay weñ yi ñi ñuy jaay aluminium yi ñi ñuy jaay inox yi. ñooñu waroon nañ leen mën a seet si ci parce que ñoom ñun xaalis bu ñu yor ñoom lañ koy joxe kon képp koo xamante ne taxaw nga ci ñun pour gën a siiwal li ñuy def gën ko bëgg bëggaloo nit ñi kooku ñoom war nañ la mën a def euh, gisanteeg yow parce que yow euh, yaay yaa ngi yóbbu ñoom li nga xamante ne loolu la ñuy yaa ngi leen yóbbu fa sore sore ndax euh, parce que ñun fii gis nga xale yi yor nañ fi xale yu bëri ñoo xamante ne kenn ku ci nekk bu xëyee fii lay ñëw kon loolu dara la ci dëkk bi kon plateau yu mel nii dafa war di mm, am télé yi yëpp gën a wane liggéey au lieu que dëkk bi ñu foog ne benn affaire rek moo fi am wax ju bari quoi voilà. bëggoon naa sax nga nga nga waxaale ni tuuti si naka nga gisee politique Sénégal comment tu tu tu vois la politique sénégalaise donc euh, franchement coow bi bari na toj yi bari na yàq yi bari na jeunesse bi conscient wu ñu ah di di di xeex di xuloo di sàndante xeex di yàq ay bien wu jàmbur yi nga xam ne seen yoon nekku ci en tant que père de famille en tant que un citoyen naka nga ko gis Euh, man gis naa ne euh, politique bi ni muy doxee warul doxee nu mel noonu parce que comme lii mag ñu bari di wax dama laa bëgg defaral kaay ma defaral la euh, kaay defaral ñu coow li warul ci bari comme ñoom politiciens yi defaral Sénégal lañ bëgg ñoom ak sénégalais yi waruñoo am problème waruñoo am benn problème ba tax parfois sénégalais yi génn ci mbedd yi doxalee noo xamante ne nii euh, dañuy waaw lu lu metti li ci dëkk bi loo xamante ne nii pour dëkk bi fayaat lu mel noonu dafa lu toll noonu dafay xaw a jafe xoolal li am temps yi yàq gi am ci dëkk bi xaw xaw na xaw na metti quoi man gis naa ne aussi nit ki bu nekkee am na looy jooy am na noo ko mën a jooyee noo xamante ne nii pas di yàq loo xamante ne nii sa yëf la waaw pas di yàq sa yëf parce que kenn ku ci nekk euh, dëkk bi kenn ku ci nekk am nga sa droit yoo xamante ni yaa ko moomal sa bopp kenn waru ko yooyu même bu nekkee ne poussé nañ la ci war nga ko mën a jaa jooyee ci méthode boo xamante ne nii bu jaar yoon boo xamante ni sa yëf nga dem di yàq bu bu boobaa bu ëllëgee loolu da nga koy da nga koy defaraat da nga koy da nga koy wuti waat quoi waaw sincèrement politiciens yi euh, Sénégal booy xool man parfois dama koy wax ma ne politiciens yi dañuy dañuy téye en otage dañuy téye en otage parce que dëkk bi fi ñu toll nii ñu ñëppay politique boo même bu nekkee bëggoo ci wax di nga ci wax waaw parce que lu tax mooy dafa ñëw ba ci sa buntu kër. loolu nag ñoom ñi nga xamante ne nii ñu kon ñoom ñoo jiitu nekk ca kaw nañ soppi na nañ soppi xar-xanam yooyu noonu ba defaraat Sénégal ñi nga xamante ne nii mën nañ ko defar te coow lu jiitu loolu daal maa ngi koy conseiller euh, sama mbokk yi nga xamante ne ñoo féetee ci wàllu politique bi waaw ñi ba gën ñu dimbale ñun ñi nga xamante ne nii sunu euh, kii ye yeggul foofu quoi sunu tànk jotewul lool ñu génne beneen méthode politique boo xamante ne nii defar dong lañ ciy jublu pas defaru voilà loolu moom ñu ngi ciy kii. merci beaucoup monsieur Mbaro c'est un plaisir énorme mu dalal ko euh, si suñu émission góorgóorlu euh, gis ngeen kàddu gi nga xam ne am na solo lool dañu fi wax euh, nee naa leen lépp li mu fi wax rek kii la téere la leçon la et que yéen ñi nga xam ne yéenay ouvrier da ngeen ko war rek daal di kon noté bàyyi ci xel bu baax a baax parce que quand même nga nekk en mu soo am problème ak client soo yoreel xaalis client mosoo jàppante ak client loolu c'est une chose à. c'est une chose bi nga xam ne dañ ko war a respecter ah, donc euh, une chose à saluer ba tax na euh, dernière chose bi nga xam ne moom tamit moom la wax ci wàllum politique bi euh, vous les jeunes willaay wa rasul willaay wa rasul soyez conscients te ñëpp nee nañu marche dafa daal di war a mën a nekk seen normal ku nekk tu as le droit de faire des marches yaa ngi mais pacifiquement ngeen bañ a toj bañ a yàq saccagé lu leen lu leen neex parce que des ngeen gis koo xam ne yoonam nekk ci gaare otom ngeen taal ko oto bi nga xam ne moom bus bi moom la ñuy dugg ñun di bage suñu occupation ngeen yàq ko supermarché yi nga xam ne fa la jëndee ay lekk ngeen yàq ko lu jàmbur yi ngeen jël ko ñii euh, gàmm ak ñii raasaat tamit bokk ba tax na euh, bàyyi leen xel bu baax a baax ci li nga xam ne moom la ñu daal di waxtaanee ci émission bi ndax am na solo lool lool lool euh, j'espère que vous avez aimé aujourd'hui voilà suñu émission Goor Goorlu di jaajëfal bu baax a baax a baax euh, Cheikh Sadibou euh, sama caméraman de tous les temps bi nga xam ne à chaque fois euh, daf ñuy daal di accompagner dans góorgóorlu moom lu rafet ci émission bi rek moo ko daal di génnee ndax moo suñu caméraman mais aussi merci beaucoup à Gora kooku tamit sama doom ba sama ñaari doom yu góor yi nee naa leen lu rafet ci émission yi ñoo koy génnee ndax Gora moom it mooy monteuru émission bi lépp lu ci baaxul da koy daal di supprimer lépp lu ci baax mu daal di ko wane ba tax na di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan. sama fans yi ñi may woo juste après aussi euh, émission bi maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax je reçois des appels partout partout partout partout dans le monde maa ngi leen di remercier bu baax a baax dégg gis naa les messages gis naa les appels gis naa les encouragements gis naa lépp gàcce ngaaraama yéen parce que yéen a tax aussi émission bi di dox ndax yéen a koy seetaan euh, di remercier aussi euh, Keyna la Star Store ma boutique donc moo génn fii tey nag dama daal di dem ba Nigéria daal di fa dem toog ah, donc génn naa Sénégal mais maa ngi resté toujours avec. sañ Sénégal sañ Sénégal sincèrement. rafet na trop la Star Store mooy jaar si yii ah, moo xam sama plateau bu ma ci def rek man maay solo sama bopp ah, mën ngeen ñu contacter sur le 78 480 25 25 on vend des produits venant de partout dans ah, di leen jaajëfal bu baax a baax ñun ñooy jaay fii ñun ñooy ñaw yi également di jox dig daje ba mercredi prochain incha allah sur ce de vous et à la prochaine incha